Mm-hmm. fi nga daanelee sax euh, foofu laay ñëwee euh, yaa ngi wax ne tàkkalikoo ngeen gis nañ na ngeen doon def liggéey bu am solo euh, bi ngeen nekkee groupe fol fële nga xam ne moom mooy sa Best mais gis nañ ne dangeen tàkkalikoo déjà lim li ma leen di jëkk laaj lan moo indi séparation boobu. waaw xam nga ànd ànd boo gis yàlla moo koy tudd ñun ñëpp dañoo dañoo xamante bien avant mën naa ne parce que yàlla wax na wax na ni ñii dinañ ànd donc ànd boobu noonu allah kulli mënoo dund ba dee te doo leen ànd mënul nekk donc ñu ñoo àndoon et tàkkalikoo bi te aussi tamit noonu la demee ah dañoo tàkkalikoo waat donc ñoo ngi dégganteeg ñoom sant yàlla ñu ngi si suñu liggéey sant yàlla mais tàkkalikoo bi moom mënuma cause bi mais ce qui est sûr et sûr mooy am na aspect boo ko wax contrat si la bokk. Mhm. Euh, contrat c'est-à-dire euh, non non contraire, contraire. parce que am na liggéey gens qui toll am na liggéey fi muy toll producteur bi senti sentir boppam nit ki di si sentir artiste bi tamit na si sentir boppam même si sentir boppam à l'aise si liggéey bi pas di tricher nit ki si rek na si ak satisfaction na nga si nekk ak bëgg li ngay def na nga si aussi si ñu respecté la loolu waral suñu suñu suñu ànd loolu moo et aussi mën naa ne tamit contrat boobu noonu moo ko moo ko moo ko dindiwaat quoi bu ma déggee prince bu baax bu ma déggee euh, Iblo bu baax prince euh, dafa mel ni yéen wàllum koppar moo leen jëlee fële nga xam ni moom mooy euh, the best ndax contrat moom bu nee artiste bi da ci war a gis boppam peut-être mën nañoo njortu ni wala ñi koy déglu mën nañoo njortu ni xaalis moo leen boole. non du wàllum xaalis sax parce que boo xoolee bi ñu fay dugg contrat moral moo nu fa dugaloon donc euh, loolu rek boo ko déggee xam ne xaalis génnewuñu fa du wàllum xaalis non non parce que ñun on est des jeunes dañu nekk di tarbiyu musique nekk ci yoon bi donc ñëwul ne dañuy focaliser wu rek ci xaalis bien vrai que ni nit ki lépp looy nekk nag na la na la amal njëriñ na la fay mais ñun newuñ ne dañoo jël suñu xel yépp bàyyi ko ci xaalis donc duñu du kon su fekkee loolu duñu avancer comprendre nga hum, wàllum contrat comme ni mu ni mu ko waxee du côté xaalis contrat bi manam ay ndaw yu toog lañ ni après nga proposer leen contrat ah, na leen kay signé automatiquement si euh, sur le même coup xam nga wala léegi ndaw yooyu am ñoo xamante ni dañ la ne baal ñu yóbbul ko suñuy waajur loolu yow nanguwoo loolu nga nga nga mere leen ci ci ci loolu avant loolu sax am na ay quelques détails ay problèmes yu amoon xam nga j'aime pas di si di si di ko leeral parce que ñoo ko dundandoo woon foofu donc euh, du am solo nga ñëw ba fii di ko wax xam nga détails yooyu noonu ak mbirum contrat yooyu comme ni ko ibno expliqué bokk na si li nga xamante ne tamit dem nañ ak wàllum respect bi mu souligné sànq c'est très important parce que nit moom boo nekkee ak moom ngeen di liggéey mu lay jariñ nga koy jariñ aussi faaw respect di daw xam nga faaw nga koy respecté ak lu mu nekk nekk ndaw da nga koy jox cër donc man ma nekk genre nit boo xam ne bu ma ak yow di di di di muñ euh, bu respect dawut wala sax boo boko mais ngeen dem au fur et à mesure nga jox ko mais respect ñak manque de respect bo xamante day law loolu man mënu supporter quoi bokku ni ci li nga d'accord suma la bu baax euh, da ngeen yow contrat bi bëggoon ko jox parents. moom mu daal ci opposé wu yéen da ngeen gis ni que moom bëggul woon seen parents xam ci li ngeen nekk wala lan moo tax mu daal di opposé ci loolu noonu. ah non ñun moom xamuñu intention moom daal mais en tout cas teg nañu contrat ñu ko ah diw ñun de wax dëgg neex yàlla dañu am waajur am kilifa te mbirum mbirum contrat dafa xaw a doy donc lii yoon mooy nga may ñu ñu jël contrat yi dem yóbbu ko ci ñu ñu yaakaar ñu liiral ñu ko. ñun buñ ko liiree ba noppi ñu yóbbu ko si ñu yaakaar ñu liiral ñu ko ba mu doy ñu bu ko defee ñu ñëw bu ñuy signé ñu signé buñ dul signé duñu après par la suite ay mbir di am xam nga je je préfère ñu bañ ci bañ ci bañ ci ñëw ay mbir ba par la suite maak suma frère Iblo aussi tamit noonu la ñu génnee mais ñoom ñu ngi continuer seen liggéey euh, dégg nañ tamit for ci weewu béy ni euh, police am na yoon sax ci seen diggante yéen ñaar ndax ci benn son boo xam ne euh, son bi yéen yéen a ngi naan yéen yéen a ko moom moom mi ngi naan moom moo ko moom est-ce que mën nga leeral loolu. waaw son la boo xamante ni bi ma fay nekk defoon naa ko fa mu leer képp ku fa nekk leer lañ ñoom ñëpp ah ñoom ñëpp ba ñi nga xamante ne tey rejoindre leen leen muy beneen label boo xam ne ñoom jël leen seen label seen tur label changé ko def ko foofu fekk ci woon kenn mais fekkoon na fa képp ki nga xamante ne yaa nga fa ñoom Euh, bi yàlla dogalee nag ma génn ma ci kaw loolu ndeke ci biir loolu avant avant ma koy génnee je ne pas du ma ne jaay du ma ne may xaw ma mais jox na ko daal Sidi waaw ah, ci ci ci ci loolu daal après ci laa génnee sama son ñoom tamit après ñu génnee seen son polémique bi commencé daw mais son bi sama son la man maa ko fa defoon ba tourné woon ko vidéo Sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët donc noonu la demee. mais son bi yow ci label bi nga ko defee woon. waaw bah, foofu laa ko defee woon parce que xam nga rek on est des jeunes yoo xamante ne ci moom la ñu nekkoon donc ñun amuñu woon benn droit boo xamante ne dañuy dem naan dañuy protéger protection wala genre yi demee noonu xam nga ay xale la rek yu nekkoon ci loxam donc ñu defoon fa son bi génn yóbbaale. donc juridiquement buñ ko bu boo leen demee ci yoon yéen amoo leen benn preuve ni que son bi yéen yéen a ko moom. bien sûr am nañu preuve parce que euh, defoon nañ ko clip foofu clip bi ci boppam moom mu ngi ci woon euh, ak li nga xam. mën ngeen am mën ngeen am mën ngeen am euh, clip mën ngeen génne clip bi mais tant que yéen a ngi ci biir labelam donc son bi si label bi la génnee yéen protégé wu leen ko ñu mën a xam ne yéen yéen a ko moom donc bu demee si yoon mën ngeen am problème dégg nañ ni sax na dem na ci yoon. waaw ñun xamuñu woon dara ay ndaw ñu newoon ci ci ci ci ci ci ci ay loxam rek wàllum protection rek dem euh, soda ak yooyu noonu yëpp loolu moom la waroon quoi parce que ci ay loxam la ñu nekkoon loolu loolu rek a tax mais loolu fekk jàngal nañu nag lu bari xam de tëj nañ say leçon yu bari bari bari waaw demoon nañ ci tamit ci yoon porté plainte ñu gendarmerie na porté plainte am benn contact bu ñu woo ne gendarme la après par par respect ñu dem wuy ji mais sax convocation mu ne jour plainte